ilay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara barakatuhu yéen bokk jullit yi daje mi ngi leen di nuyu te di leen nagul seenub siyaare nuyoo bu nee mi ngi ci jiital kilifa adduna yi nga xam ne ñu ngi fi mu tam lu ci Antoine Diome ak ñi mu àndal ba ca ña gën a ndaw ci bureau ya sëñ bi mi ngi leen seenu cant li eh, ak cantam bu baax di leen xam ne li ngeen def de xam na ko bu baax a baax ndax boole ngeen ñett yoo xam ne lu am solo ci nit muy seen jëmm ak seen ñaq ak seen waxtu lépp boole ngeen ko indi ko ngir sëriñ bi warmaale ko ko loolu mi leen di sant bu baax. ñaar suñu borom mu dool leen taxawaay bu baax. te dool leen jubale te doole barkeeli seen liggéey te lu koy yaatal. nga xam ne fii ngeen nekk. ah noo ngi leen di sant waaye ñu tam war ngeen sant yàlla ndax ab teen la rek bu ñu roote kenn ku indi sa baat indi sa ndab boo roote ñu duyal la teen bi mu paju aaju moo ci ball kon ñun nu ñu fi nekkee ni ngeen fi war a ñëwee yaatal nañ leen nag bu baax a baax a baax a baax dañaare nag ci dara sëñ bi lépp loo xam ne aaju woo ñëw te ñëw ko fi su moom defal leen ko boole ko mbindee ci dara sëñ bi di leen sant bu baax di rafet sant bu baax di gisit nag jëf yi nga xam ne jëf ngeen ko fii diggante ndox ak ak ak làmp ak i yoon ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu mu ci Lamine Bachir mi dana leen ko leeralal ah, sant na ginnaaw bu loolu wéyee ginnaaw bu loolu wéyee ñu dool nag di sant kilifa seen kilifa nga xam ne mooy leen yebal ndax mënoo leen yebal feneen mënoo leen téye waaye waaye am ngeen nag sañ su yéen seen bopp ngeen ñëw seen bopp ngir yéen yéen bëggal seen bopp li wut li wutukaay la kon nag noo leen di di ko li ngeen sant di ko sant ci yebal si mi leen yebal di ko sant ci ndimbal yi nga xam ne taxawaay yi nga xam def na ko yëpp ko sant ginnaaw bu loolu indi suñu bokki bopp yi nga xam ñoom ñooy màggal di dalal ñuy màggal si <laughs> sant na leen bu baax a baax seenu taxawaay ndax ñoom képp lay seen kattan lu ñu mën ci taxawaay ak jëf def nañ ko te fu nekk fu ne fu kër sëriñ Basiru nekk fu ne mbokk yi fekk nañ ko fa ak seen taxawaay ak seen pas bëgg ak seen doyloo kon loolu noonu lañ sant leen ñaar bu baax a baax loolu ñëpp ñu dal ñu dellu maase ñaanal ki nga xam ne mooy sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa Mbàkke gën ko dëgëral dolli ko jàmm ak tal ba mu gën a mën a ànd ak yéen ngeen nekk mu bokk nekk ci ginnaawam ñu liggéey liggéey mu jëm kanam jërë ngeen jëf tubaarka sant nañu na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal na bismillah adduna bi fooy ne rek tàllalal amin amin tàllal amin amin amin amin amin min min min lay teema soxna jaara